de l'AFP nous avons mbégte conférence. dañuy nous conférence le au sein du parti l'AFP nous avons ñun Benno Bokk Yaakaar Moustapha Agnès lors d'une réunion de secrétariat politique exécutif nous ñu on est dans Benno Bokk on reste dans Benno Bokk tout ce que vous faites vous le faites dans Benno Bokk

des conférence Benno les deux objectifs de la conférence benn l'unité et la cohésion dans Benno Bokk de rassembler les femmes de Benno Bokk de partager parce que depuis le début les élections présidentielles retrouvé lieu. donc nous c'est un moment de retrouvailles c'est un moment de partage c'est le meilleur prétexte c'était le mois de Ramadan, un mois de partage, un mois de bénédiction. Donc, c'est le premier objectif Deuxième objectif bi, ñu né kat wéru koor suñ ci génné dem nga def sa ponk bi nga xamni moy ponk bu di dem def sa ñu ne donc lépp luñ fi am lépp luñ fi am dañu koy def tirage pour ay billet Màkka ñuy ñuy gërëm suñu responsable yi ñu si jàppale yëpp dem la ministre yàlla na la yàlla fay gis nañu ni nga ñëwee gis nañu ñëw nga ak yéene gis nga ni wane nga say sœur nga siy fekk gis nga ni wane nga ni say naataango nga siy fekk président Macky Sall moo la wóolu jël jigéen ñi teg ko sa loxo. jël gune yi tek ta sa loxo donc lolu lu am solo la ma dila ñaanal yalla la yalla may noo noko doxé ko ba mu mot seuk di wax nak que thème bi jël moy femme politique et islam Donyo bëgg nak conférencier bi wax ni, ñun jigéen ni ñi nek langum politique lan mo wara nek suñu taxaway suñu diggante suñu boroom ak suñu diggante suñuy nawle parce que kat fii lañ koy bàyyi de politique bi fii lañ koy bàyyi su ëllëgee ñu rendre compte de nos actes donc loolu ñu di si bàyyi xel. defoon nañ ko 2017 defaat ko 2019 pour appel à l'unité jigéen ñi ànd rek def benn bu yëkkatuwendoo di dóor loolu rek moo sabab. Euh, conférence bi ba pare nag billets yi ci am ñu di ko tiré pour suñu mbokki jigéen ñi nga xam ne amuñu doole ñu mën a dem Màkka. bii yi président moo ñu ko jox comme ni mu amee habitude di ñu jàppale ak mu ne suñ ko defee rek à travers notre coordonnateur départemental Augustin Tine ak suñu député bu ñaawul boobu notre vice président à l'Assemblée ñu jàppale ñu pour que ñu mën a réussir suñu manifestation waaw biye yi rek ñi fi nekk ñëpp rek ku ci sa wërsëg nekk rek ñu xam ne yow la yàlla woo ñu jox la ko gungeel la ñaanal la boo ñëwee ñu teeru waaw di ko rafetlu di ko sant parce que yaakaar naa ne tey nag institution yëpp déplacé nañu ñëw rawatina suñu ministre bopp di euh, le ministre de la femme donc teewaayam bi mu teew ñu ngi ko sant ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy rafetlu vraiment waaw loolu aussi mi ngi def nga waxtaan wax dëgg xam nga bu ñuy wax unité ca kaw te bu ñu nekkee ci suuf di defante yu sew loolu laa wax léegi ñu ne nañ ko bàyyi parce que amul benn résultat pour ñu am un résultat fiable dañuy joxante loxo ñu ànd jubóo bi di dëgg ci ñun responsable yi jiitu militant yi topp ci ñuy yëkkateendoo di dóorandoo waaw xam nga toujours rek li ñuy wax mooy président saa yi ñu dollee rek dañuy jël li ñu yor duñu ko naw waaye xeebuñu ko xam nañ ne président bàyyi nañu xel waaye bu ko yokkee aussi ñu jël suñu joxee confiance comme ni mu ñu ko joxee woon ci élection présidentielle yi ba mu ni sax jigéen ñi moo tax mu gañe jigéen ñi noon la ñuy laxasoo waatee rek ci wetam fas yéene liggéey ba indil ko un résultat waaw liggéey bi des na parce que toujours bu ñuy wax unité rek foofu la liggéey bi des na parce que ay nit bu ñu àndul nag duñu ñu a liggéey liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la il faut bu njëkk ñiy yëkkatee ba yuuxu ci kaw gas seen pax ba mu xóot bu kenn nekk si suuf jël sa peel di ko suulaat te loolu moo am xam nga Thiès seen politique dafa xaw a metti mais bu ñu seetee ni bañ koy def ba tey amuñu résultat war nañoo soppi doxin parce que nag sooy dem ci benn dynamique te amoo ci résultat da ngay wàññeeku changer de fusil d'épaule loolu mooy dëgg kon nañ leen joxante loxo bu wér muy dëgg nañ leen ànd dugg ci gox yi ak gox gox waxtaan ak nit ñi te bàyyi la politique politicienne amul benn njariñ